parce que dañ ne opposant opposant mais opposant bu demee ba mu pouvoir ñu bokk xalaat comme par exemple bu ñu jël le cas de Idrissa Seck tey bu demee seeti Macky wàcce fekki siwaat Macky Macky xajalaat ko mu dugg mook Macky est-ce que duñoo bokk bëgg-bëgg bi wala boog taxawul pour jàppale askan wi jàppale Sénégal taxul Macky ubbil ko buntu bi xam nga opposition amul Sénégal mais parti opposant ngeen wax tout le temps defal rek mais amul Sénégal parce que maintenant man dootuma d'accord ci opposition boo xam ne bi def puusal ma toog la xam nga Sénégal ñun ñëpp dañoo sonn dañu waxante dëgg donc tey lan mooy dox Sénégal un programme oh Sonko bi nekk fi di wax du am du xamagul état état dañu koy jàng Abdou Diouf lu mu njëkk nekk relation internationale gouverneur directeur cabinet Doudou Ngom yaa ngi dégg directeur cabinet Senghor ministre du plan et de la coopération premier ministre dix ans Djibo Ka nekk na gouverneur nekk na préfet génn na ENAM ñoom ñëpp dañoo jàng administration ba mokkal ko Sonko tey dem jàngi administration tey fële na muy bës ëllëg am na génération yi ñoo yoo xam ne ñoo koy ëpp nit nit da ngay jàng état tey opposition xam nga daa amul fi kuñ ci woo nga def Idrissa Seck yow lu mu waxoon fi conseil économique social baaxul dañ ko dissoudre dañ koy sàcc détourné xaalis bi man conseil municipal moom may fal wala décret wala yooyu anamu tey dara delluwaat na li mu wàccoon la lekk donc Sénégal opposition amul Sénégal kon tey Macky bu góorgóorlu ci quatre yi mu nekk man maa la ko wax jàppate yi yaa fi sos moo lay tax a falu ëllëg sax mën na am mandat mais hélas il n'a entouré que par des médiocres des voleurs et des loolu mooy musiba bi. mais monsieur le maire euh, yéen ñi nga xamante ne yéen a jege président yéen ay ànd président bu ngeen toogee war a waxtaan seen biir au lieu que ñii di aw fi ñii di aw faa ku nekk di wax li gisoo ne yéen a war dajaloo yéen comme ne nga opposant amul pourquoi pas yéen ñëpp du ngeen toog wax àndandoo dem si président. loolu laa waxoon bi ma ne ko booy jël jëlal des hommes compétents di génne tey xoolal tey ana ñu mu àndal tey di ñu koy xas di ko weer di wax ay ñoom si selu di wax lu leen neex di saaga tey ji président dafa waroon jël tey des des kàngam xam ne Sénégal tey dafa nekk situation bu catastrophique l'heure et très grave ay ñoo xam mu mun ñu génn Sénégal ci affaire bi loolu la woon waaye nag amu ko comme nag moom lii lii moo ko doy Sénégal di gën a suuf comme le Titanic ah demain bu bu bët setee xale yi dinañ taxaw waaw xam nga mooy di ma xam nga defoon nañ fi dialogue national ñëpp a ngi tey balaa ñoon dem di ràlli ji di fekk président dañu waroon toog wax ak président ko président l'emploi des jeunes la sécurité la santé la pêche l'agriculture tourisme yaa ngi dégg xale yi les étudiants yi fi nekk te amuñu amuñu place éducation sécurité santé nit ñi mën ko wax mais tey ku ci nekk boo mooy wax rek ku ci sonn sa bopp ngay xalaat nanga dañuy def conseil à la présidence ngay am un million deux millions nga weex tàll ak bi jaaw amuloo askan wi njëriñ mosutoo liggéeyal Sénégal dara Macky Sall moom moo war mais Macky Sall kenn waru ko jàngal loolu xam nga tax fekk na fi jamono Abdou Diouf ñu taayoon Abdou Diouf dem ci Abdoulaye Wade tey ñi nekk moom dañoo taayoon Abdoulaye Wade xam na ne ëllëg dañ koy taayir tey dañ ko jëloon pour ne ko gestion Diouf ak gestion Wade baaxul woon mais bu Diouf moo tax ne bu Wade junni yoon mais tey dafa demaat continuer waat ànd ak ñi nga xam ni ñoo ko doon ndax les mêmes pipes boo xoolee retour la rek avec la famille libérale mais Macky tey ji su muusoon tey ji il sera le meilleur président parce que cinq ans yi mu def il réussi à cent pour cent jox naa ko tey tey jii bu njëkk ba jamono euh, Abdoulaye kilo ceeb demoon na ba ba cinq cent francs prix dañu doon yëg comme comme ay golo yu concours yëg ñu ne ku ku jël paie mooy nekk président courant kuy xamaj guddeeg bëccëg transport bi yokk gasoil essence lépp yokk waat ne dans trois dans trois mois kenn du fay salaire yi mais lépp Macky fexe na ba stabiliser ko la on le mais dafa mel ni comme géej bu mu tànkee benn ndox benn bëri ko ndox amatul problème ñi ko entouré ñoo baaxul nee naa ko tey ñu fi nekk ñëpp moo leen tane foofu la mu def ñu ko te tey ñooñu amuñu benn programme opposition bi boo xoolee euh, euh, euh, Akhi Ousmane nekkoon ci jamono Abdoulaye Wade su la kii Abdoul nekkoon ci ci Macky Sall ñoom ñëpp ñu foon ñoom ñëpp liggéeyoon nañ fi def nañu ay erreur ay affaire yu seen après ay yu kenn xamul mais Macky tey su muusoon tey day changement bi ma waxoon tey ji ah gouvernement d'union bi tey dañu war a seet ay tête yu bees tàq. mais pas ay po ay Dakar du saf ñaari yoon ay pôles yu demoon ba sonn ñëwaat Idrissa Seck xam nga tax mu dellu si d'après que ni effectivement dëgg la dafa nekk en faillite alal ju mu fi ay changé de siège bi anamu. Idrissa Seck bu demee dee bay jar conseil économique et social ak foo xam yëpp loolu ngor la dignité la valeur la et puis seen oppo euh, euh, opposants yi du ñu xool sax seen seen njaboot seen jabar ak seen doom yi ak seen sët ëllëg nga wax waxeet wax ba pare weddi weddi sa bopp wàccu lekkaat ko ëllëg du ñu xas sa njaboot. mais loolu moom yàgg na si politiciens yi da ngeen di dem dafa mu neexee rek ngeen di dem fekk ji wax loolu moom askan bi ñëpp dañ leen koy wax. waaw non xam nga loolu dafa am ñoo xam ne amuñu valeur amuñu dignité amuñu ngor nit booy diggee da ngay diggal sa askan du loolu la qu'est-ce que c'est que la politique c'est un mot grec c'est l'art de construire la cité loolu lay tekki dafa am ay bâtisseurs am ay am noble am tey jii boo demee tey badd banque mondiale ba ci bitim réew Europe bi yëpp ba ci fii fii fii Sénégal ba Afrique y a des jeunes cadres yoo xam ne bu ñu leen jëloon jox leen poste nañu redresser le pays teg ko en voie de développement mais Sénégal n'est même pas encore en voie développement non seulement sous développement waaye dafa suux comme le Titanic. mais Sénégal am na ay kàngam yu jàng ba toog mais dañ naan boo siwul wala boog amoo mbokk bi politique kenn du la jël lan ngay interpellé foofu euh, président. mais wax nañu que président xoolatuñu la la bonne crème. et sans l'éducation le Sénégal ne peut pas léegi xale yi koo ci gis amatuñu digg léegi xale day jàng sax ba ci ak am bac baay ne ma ngay entre bac moom lañ tuddee diplôme chômeur voilà léegi boo ñëwee ñu ne lu ñu wax damaa bëgg bëri ji dañu waxante dëgg bu yàggee est-ce que dañu am ay cadre xale yi fi jàng tey ba am seen master seen master jàng tey jii ba xam santé yëpp su leen deful ci ci poste ministère yi ëllëg kon kan moo ñuy doon ëllëg ku ñaan sab ndono sab dee ñaaw Macky Sall dafa war si ressaisir avant qu'il ne soit trop tard loo jëkkewul te di ko boo ci aylee na fàttaliku la cay xew ëllëg ak nettali ba Macky xale la il a l'avenir devant lui l'endroit où plantent des vautours y en a que fii ay vautours ñoo ko ñoo ko wër poste moo leen ak xaalis ay truand ay ñoo xam ne dañu leen woon ay ñoo xam ne seen intérêt njaboot tey ji ji xoolal maire nu ñu jaayee suuf si Sénégal imagine toi tey benn benn parcelle soo ko jaayee un million ñaata la bu dee mille mille mille parcelle nga jaay ñaata la mais ce sont des milliards mais fa lañ koy dugal maire yi lan lañ ci réalisé ñu fi ko def ay yan société lañ fi lañ fi pour la jeunesse qu'est-ce apporté pour cette population ñu fi nekkoon ba kenn nga xam ni kenn mënu ko épingle kenn mënu ko sax muy élage Malick Gakou parce que société moo ko yore boppam xaalisam yàlla moo ko jox ko kenn mësu ko épingle kenn mënu ko épingle mais ñi fi nekk ñëpp ku nekk épingle nañ la mais est-ce que mën nañ jusqu'à quand mais on en a ras le bol lii dina indi soulèvement populaire xale yi xiif ñu mar nañu bëgg na nañoo liggéey sen se yaa ngi tas parce que seen jëkkër yi amatuñu doole ku feebar mun a faju ku añ doo reer ku reer doo ndékki ñu ngi agressé ñu ngi violé yaa ngi dégg société yëpp tëj na poor bi boo demee tey société de pêche yëpp tëj na tu as bien compris port bi yëpp jaay nañ ko depuis Abdoulaye Wade et puis ils ont tout privatisé ndox mi courant bi ceeb bi xam nga au temps du parti socialiste dafa amoon la caisse de précaution et de stabilisation des prix pourtant ceeb bi daana yëg mais Abdou Diouf danaan jënd ceeb bi su paree mu denc xaalis bi su dollar bi yëgee wala franc français bi mu def précaution bi déstabiliser prix yi maintenir daal di secourir sénégalais yaa ngi dégg subvention leen ceeb bi nekkaat cent soixante quinze fa lañ ko bàyyoon yaa ngi koy fàttaliku gaz bu mag bi mille franc la woon bu ndaw bi six cent franc paquet de sucre deux cent cinquante litre diwlin trois cent franc gasoil ay cent et quelque essence idem tey année Abdoulaye moo xam dafay def dafay def ceeb bi quatre mu wax rek xam ne ñoom ñëpp seen bopp moom fi nekk lu mu wax ñi àndoon moom depuis soixante dix huit dem kaso dem fu nekk léegi kan lay xaar doomam rek lay xaar pour mu remplacer ko boo xool si c'est vrai parce que loolu rek lay xaar xaatul Idriss Seck xaatul Massamba ak ma dem son fils Karim sama doom sama doom Idriss Seck tamit ba mu ñëwee loolu def mais Idi man daf ma bett il m'a Sénégalais yi opposants yi amuñu valeur et puis nekkoon nañ fi depuis Abdou Diouf ba léegi mais lan la ñu apporté le Sénégal ban changement moo fi am mais Macky bu xoolee war na changé moom mooy xale. nañ dellu si waa tuuti tu avais des projets bi nga nekkee maire Pikine tu avais des projets j' espère que actuellement nouveau maire bi fi nekk mu ngi koy yeggali wala si say wala ay projet boppam la yor. oh déjà euh, maternité bi nga xam ne waxoon nañ ko cité pépinière euh, dégg naa ñu ne mu ngi ciy dox wax dëgg yàlla aussi bu ñu commencé ñun su suñuy euh, égou ma tali bees tey moom it euh, euh, Pikine yëpp wax dëgg yàlla Pikine Est mu ngi fay def ay tali mu ngi fay def ay égout yooyu yëpp nag aussi suñu projet la woon ak ADM amoon nañu ci ay projets yu bari et puis euh, le l'actuel secrétaire municipal xam na ci dara même jardin public boobu ñoo fa defoon maa xalaatoon ba suñu benn grand bu ñuy wax Mawtur naan balaa ñuy def jardin di féexlu ñu am lu ñu lekk ak lu ñu naan ma ne ko maire yi mun la créer emploi maire d'arrondissement moom de très waaye lu wax rek olof Ndiaye nee na vous avez quelle relation yéen oh, sama sama sama sama sama sama sama jarbaat bu baax la parce que sama koñ bi ma juddoo koñ bi ci topp fa la fa la nekk ci papa ji dem grand ndaw grand ndaw moo ma yar à Pikine grand bu baax yaayam aussi ku baax la en tout cas il est tenté de faire des réalisations quoi qu'on puisse dire waaye nag eh, expérience ñun bu ñu am ak idée yi ñu amaat pour Pikine Est am nañ ko ba tey te dañ ci dox xamul tax ñu ci dox parce que ñoom bi ñu paree ëllëg ñu woo seen aîné yi ñu wax leen jox leen yoon yi ak kii dañuy jàpp tëju ne def na mën nañu te mën nañu te Pikine Est dafa soxlaat yeneen yu dul ji xam nga tali ak li Macky Sall def pont yeeg yëpp baax na jam ñaajo Arena Tour baax na stade yi baax na mais est-ce dañ koy lekk est-ce que salaire est-ce xale yi am nañu ci salaire la la ci xale yi am mais le peuple a faim cette jeunesse a besoin d'emploi yaa ngi dégg réaliser ay soxlaam paj ay soxlaam toog fii liggéey xaalis baa ngi fi nañ ko génnee impôt domaine douane circulation li ma wax société yi entreprise yi ba ci euh, euh, institution yi fi nekk yëpp mais nañu dimbali ngir yàlla ñu bàyyi xaalis bi ñu randal ñu xam ne c'est l'argent des comptes comptes viables sénégalais loolu nga xam ne ëllëg boo dee yàlla day lakk say doom ba ba ñuy dee luñ ci lekk ak loo ci réalisé riba la lan moo ko fi jar xam nga kañ ngay de te bés dina ñëw nga dajeeg sa borom baaxaan yow rek li bind àdduna jaru ko askan waa ngi jooy nañu mar nañu su ma ci naqari mooy xoolal jeune tey kenn ñemul takk sëy yaa tas suñu yaay sonn nañu drogue bi échappé ñu def ay faux billets ay buggal sal def ko ñu leen di bàyyi ñuy génn mais xale yi bu ñu ko defee bu ñu leen jàpp dañu leen doole dañu waxan ci dëgg. ñu gis ne après bi nga jógee ci mairie bi da nga créer une parti tuddee ko Suqali Sénégal. waaw euh, mouvement parti sauver le Sénégal dama ko créer parce que yàlla moo na a sauver Sénégal mais man li ma wax mooy wax naa ko bokk naa sax ci mouvement wu ñoom met Ousmane Sy. Euh, mais dama ne man su ma ñëwee man bokkuma mouvement boo xam ne bi dama naan patti pattiral man dama créer pour pour taxaw dénoncer wax Macky Sall du xeex ko de non parce que dama gëm yàlla yàlla moo ko fal yàlla mi ko fal moom rek moo ko am waaye dinaa ko ne dul baaraam ne ko lii ak baaxul pour la population ndax man dama bëgg nekk l'avocat de la population tey boo demee assemblée nationale du saagante nekk xeex pourtant député bu nekk département bi nga nekk xoolal Idriss Seck affaire lâche yi mu def ak traiteurs yi taxaw wax ak ministre bi waxul li am fa mu wàcce ko parce que il a attaqué le gouvernement di neexal di raay xanaa moom dafa am ay problème donc ñun nañu nañ fi taxawal askan wi nekk ay gor yont bi ne ne bu benn reeru góor tuuroo yor reeru góor yëpp tuur nañu nak nga man tooge yow ngay añ di reer say doom di dem vacances Paris Espagne bu ñuy jàngi école yor portefeuille bu mu fees dal ak xaalis di sol ay yére cher ay voiture climatisée ay kër yu climatisé yor xaalis ngeen ngeen na alal ji yóbbu ko bitim réew am fa ay kër doomu Sénégal yi taxaw fii ñu koy ñàq baadoole yi di fay impo di fay lépp ñii ñu ngi di génne location ñii seen doom yaa ngi dee mënu ñoo faju ñii seen jabar yi sonn nañu xool Sénégal de profondeurs amul tale yu baax amul oto yu baax amul lycée yu baax amul université amul dispensaire yu baax amul maternité amul ay hôpitaux yu baax même su amee sax amuñu personnel bi ñu fa def kon ñu koy tabaxee pour kañee ginax yi c'est mais tey jii l'inondation au Sénégal ak président loo ci wax. inondation bi euh, le président dafa taxoon fii ne daa quatre ans dina ko réaliser mm-hmm. defu ci dara plan ORSEC bi ñu ngi wax ne dix milliards la woon ñu ko la ministre de l'intérieur ana dix milliards yi ñu fi ñu fi réaliser. loolu dama la koy laaj yéen politiciens yi gis nga nit ñi nañu bàyyi xaalis bu leen jox gis nga ministre bu ñu la joxee ministre du commerce wala de l'intérieur wala fu nekk da nga war a taxaw ci ministère ba ñu xam yow aay nga. Parce qu'il faut priver les, les, il faut, quand tu dis que tu es un génie, il faut faire des preuves de génie. Mais toujours, nous la vision du président de la Sénégal. Toujours le président de la Sénégal. Pourquoi nous créons un ministre? Pourquoi nous créons des prix? Nous parce que Khashbi aussi, nous savons, Sénégalais, nous sommes des C'est l'argent des comptes conviables sénégalais. Macky Sall, tu l'as encore fait les caisses noires. Député yi ci fay ministres yi DG yëpp nañ ko wax surtout le corps de la justice nañu yërëm xale yi ay nit taxaw ay policier def ay enquête jàpp leen ci ay faux billets ñii ci ay drogue ñoon di bàyyi ñuy génn te kenn xale yi ku ko def ñu tëj la pendant dix ans si su taxaw ne man xam naa jaay contre drogue ci ñun la góor jigéen ci ñun la ñu sàcc ay milliards xam na ko ci ñun te kenn du ko woo Moussa Assane Diouf dañ ko yab bien vrai que saaga baaxul ku saaga nit respectoo saay da nga bëgg ñu saaga saay Assane Diouf il est incorrect mais si su mu fi saaga ak li a ñaaw doy na waar daal Euh, l'immigration clandestine euh, suicide la parce que tey mën nañu fi toog réaliser mais su ko état bëggoon tey jii mooy génne ay financement jox xale yi ñu réaliser ko mais xale bu gëlëmee war a takk jabar war a dimbali ndeyam war a faj jaaj war a ful nekk dee jaay ba kanam génn sax wuute ko moo koy gënal ba ñuy dem xaatu ñoon dañuy dee dañu yaakaar nañ fi mën a egg ñu repêché leen génne leen ñu dem waaye ndogalu yàlla am ci waaye it nag waruñoo génn nañ toog waaye nag dama ne sëriñ si fi nekk tarixa yëpp laa ñëpp ñu fi mënti nekk nañu am doole ak xalaat xam ni ñoom ñoo war a taxaw askan bi ñoom it ëllëg yàlla dina ko laaj war nañu woo président wax ak moom ci financement wu xale yi ñoom it alal ju ñu am bitim réew war nañu tax parce que tey waa bitim réew ay téléthon yi def ci ci naan jàppaleel imam sàngam dañ ko jiñ cent millions mais kooku ay dil la pourtant léegi ñaata ñaata Sénégal des professeurs ñaata hôpital la soxla tey ndax tey war nañu def téléthon tey exemple léegi trois milliards ou dix milliards def les journalistes yu amul emploi tous les jeunes yoo xam ne am nañu am nañu ay ay diplôme amuñu ko ñu dem foofu ñu ñu leen lebal ñuy finance ñuy liggéey les prostituées qui sont bu ñu leen bu ñu leen ubbi benn compte may leen ko un milliard cinq cent mille cinq cent ci leb di jaay di ñëw handicapé yi fi nekkee war ñu leen mën a ubbil compte may leen ko ñu ciy leb di jaay mais bu amulee Sénégalais yi fu ñu jëm dañuy braver la mer parce que nag boo fi nekkee di am gàcce da ngay dee am na ñoo xam ne rus nañu agressé rus nañoo rey ay gor lañu waaye nag aussi nag bu defee ba xam nag loo xam ne gàcce rek a jees nag gars yi jàmbur duñ ko bañ. dañu lay jaajëfal bu baax a baax tàggatoo ak askan kontaan naa ci yéen tàggatoo nag ak yéen maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel di wax ne ku ma ci heurté na nga xam ni man euh, euh, Sénégal rek laa fi nekkal Malick Konté nee nañu que dafa dëgër dafa reew dafa nangam des fois sax dañu may menacé ah état bi pour ay prison man faale wu prison mais dëgg laay wax dëgg boobu may wax nañu xam ni que vraiment que loolu la. ma wax président de la soit xaale xelam une équipe compétente travailleur illustre yoo xam ne mën jàppale Sénégal loolu daal laan ñëw den ziar merci jërëjëf ah, jërë ngeen jëf mbokk yi defe naa déglu ngeen bu baax a baax kii di suñu président El Hadji Malick Konte ñu ngi koy jaajëfal bu baax si disponibilité am di leen jox dig daje dans 15 jours si beneen émission jërë ngeen jëf